Rayo moi quatrième opérateur de téléphonie fixe Sénégal basé au ca nous ñu taxawal depuis 2015 service au Rayo yi mën nga ko am fait Pour dem ci àdduna foo nekk mën nga wut abonnement surtout yéen ni mbokk yi Italie so bëggee xéwalu ci bànneexu Rayo de vous joxe sa carte d'identité Sénégal ou le passeport nga avez am ci application Rayo ak numéro téléphone bu bees li ci gëna neex ak 10 euros mën nga wuti une heure de temps Sénégal 5 euros mën nga am 40 minutes de communication yokk si nag 15 jours yu nekk waa dinañu def promotion 100 ou wala 200 pour ngir gën a yokk sa waxtu waxtaan ba sa xol féex ak waa Sénégal su fekkee da ngaa bëgg liggéey ak Xayo te doon revendeur di jaay crédit wala nga bëgg puce pour woote gën a yomb te gën neex Manga Joko ak Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 Yomi nek Italy, Italie dawal wuti sa abonnement Hayo ngir asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi safoo seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara am mbégte lool dellu siwaat ak yéen ci waajtaayu màggalu Daarul Muxti gii nu dëgmal te mu dajeeg juróom nyet fukki at bi borom darul ci wacce ab eh, liggéey xana di wax rek ni bi may taggo ak yeen ci pàcc bu mujj bi ma ngi doon wax nyen ñeenti pàcc ndax pàcc ba ma ni woon juróom-ñaari pàcc ginnaaw bi dama dellu si ni leen sedd be ma japp ba ma ni juróom-ñaar waaye juróom-ñett la bu mujj bi ma ni leen juróom-ñeent la waaye ndekete booba naaxuma woon <laughs> ma ni woon juróom-ñaar moo doon juróom-ñaar bii may wax juróom-ñeent kay kon ci laa daax boobu mooy juróom-ñett bi nag mooy juróom-ñeenteelu pàcc bi di neuvième épisode nuy nuyu ak ziyaara سيرين منتخا مكي خالي جنرال دي موريت اك سيرين بسيرو انتيان مي توك توغاي بروم دارول موختي زيارة جابوتو سيرين توبا اك بروم دارول موختي ديب دي زيارة شيخي اك طالبي دي زيارة ني سافو سين شان دي خمسة مريو تي

nekk ci Los Angeles di ziare Serigne Bassirou Serigne Ousmane Bassirou Sylla eh, moom itam def naa nekk ci Colorado eh, di ziare bokk yëpp rek eh, dañuy wax ni ku lim juum waaye ku lim da nga dul matal Serigne May Dieng ak Serigne Saliou Mbacké ci Maroc ñoom ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu ak ziyaara Serigne Abdou Aziz Touré xalifa Serigne Adi Touré nekk ca Faas mbokk yi kon ci juróom ñetteelu pàcc bi ñëwoon na ak yéen ndax maa nga woon ca kër yi boroom Daaru Muxti sancal Serigne Touba te Serigne Moussa Ka indi ko ñëwoon naa ba ci sancu Touba bi sëriñ bi ni woon boroom Daarul Muxti jëlal suuf si nekk ci kaw def ko ci biir jël suuf si yees si tasaare ko waxoon naa leen ni Cheikh Abdul Xudus Mbakke nee dañu daan toog di fàkk suuf su màggal si ba mu def ab jal ñu gas am leeñ mooy pax mi gën a mag suule ko suuf su màggat sa jël suuf su yees sa tasaare ko nee na noonu la def tuubaa gépp ba mu daj kani woon boroom daarul moxti li sëriñ bi bëgg munta nekk ndax seng amut boroom daaru moxti bi muy ñëw indaaliwul ab xaalis waaye bi mu ñëwee ba ñu defee loonu ba noppi la yónnee ñu dem sëf coffre fort ba indi ko euh, Touba euh, kera bi Copperfort bi ñëwee Serigne Moussa Ka nee na bisub keroogam toroxal na trésor Ceerno yi doonay Cheikh Bamba mi doonay Rasuul ndax sanc ba maanaam yeesalaat Touba sëriñ bi daf caa wax boroom Daaru Muxti wax ju réy ba mu ko waxee ni ko nga dem sañcaat Tuuba sëñ Musaa Ka nee na ca alsasin ca hëlsasin Cheikh Bamba woolu Ceerno ni ko nga dem seng ko taax ko jarm bisub keroog la ko ni noo def tuuba mooy sa misaalum kër ya am tuuba ci àjjana si musaaka nee na sëriñ bi dadi borom daaru moxti eh, sanc bi ma lay sancloo tuuba nu kër ya rek mooy doon misaalum say kër ci àjjana keroog la maam Ceerno fanaani tuuba te yóbbuloowul ab dërëm bis booba kon bi mu ñëw indaalewul ab xaalis ngir xam ne fu mu dem Bàmba jox koy junni ba bët sees te la Ceerno door a yónnee kon bi mu ñëw indaalewut ab xaalis dafa ñëw ba yegsi toog yónni moo tax sëñ Musaa Ka nag ni eh, bi coffre-fort bi ñëwee mu ni bisub keroogam toroxal na trésor ceernooy doonay Cheikh Bamba may doonay Rasul maanaam li mu indi ci xaalis bari na bari waay goog sëñ Moussa Ka nee na rusloo na trésor bi nga xamante ni ab gouvernement wala ab état fa lay denc ab xaalisam mu ni nag ca moomaat la ceerno toog fa Tuubaa ba seng yari keur ya tax ko boba bi xalis bi ñewé dafa wax mag ñi sëñ Mor Jóobu Mbakke ñoom sëñ Moxtaar Sàmba Jóob sëñ Masayar Sil ak mag ñoo ñëpp mu jox le ab xalis ñu ñew ndiarem dal di dugg saxaar wuti ngeej muy Rufisque ak ndakaaru barab yi nga xamante ni bii amoon na ay comptoir commercial Morel et Prom ak Morel et fu ñu dem rek bu ñu jëndee paketi seng yi dañu koy teg ci saxaar gi saxaar gee koy indi ba njaareem wàcce ko dong yi di yenoo paketi seng yi njaareem di ko indi Touba oto amul waaye ñeent fukki kilomètre ak juróom di diggante Touba ak Mbacké euh, Njaareem ak Touba ñeent fukk ak juróom wala ñeent fukk ak juróom benn foofee lañu doon yenoo paketi seng yi di ko indi di Touba Cheikh Abdoul Khoudous nee boroom Daarul Muxti bi mu defaree néegi seng yi dafa feteñlu ay peri xat mu wër kër gi mu doog cee def bordage seng yi la ko sëñ bi waxoon sàkketu seng yi ba loolu wi nee na bar euh, wax euh, barbele yi nga xamante ni day am lu mel ni ay pont bu ko ak jur riisoo mu jam ko ci Abdou Khoudous nee na daf ko ca def ba mu noppee sañ ci kër yi ba noppi dafa bàyyi ay koppar ab xaalis bàyyi fa dongoom ab taalibeem buñ doon wax sëñ Cerno Faal bàyyi fa koppar for ba def ci xaalis wax sëñ Cerno Faal ni ko sanc bi kat damaa xamul kañ la ci borom di ñëw kon xaalis bi lépp loo xamante ni bii sikk ci sanc bi te ñu koo defar nga jël ci xaalis bi ngir ñu defar ko kon sanc na ba noppi ka ko waxoon ni ko sang amut nañ déglu sëriñ Moussa Ka mu wax nu ndax borom darul moxti ka ko ni won sang amut tam ni ko manam sëriñ Touba lu mu bëgg am ko te lu ma wax ma def ko nañ déglu sëriñ Moussa Ka mu wax nu ba da daarul mooti sancaatee ba noppi ndax seng ya pont ya mat na wala to lu ma ni at la Ceerno ba seng yaari ya tax ko desal na ci desal na mu ni desal na junniy seng dañ ko doon seng amut sëñ Musaa Ka nag nee na desal na junniy seng ak téeméer ya desal na junni dénk may ko wóor ya kon sanc na ba noppi desal junniy seng ak junniy dénk muni Desa desal na ci pont yi ñuy daaje juróomi barigo ba muy reñaan lo fa mu na la bayiko manam yoy mu desalon yépp suñu saka nee ba ñuy waaj ngir ci ngoli lu yi fop ngir yu balé rek borom daaru ci daf leen di wax nañu ko mu ni nag banal fa lépp maanaam li des ci matériel bi mu ni banal fa lépp daal di dellu daaru waa daaru ak Tuuba ku nekk yi waaru ci sanc boobu nga xamante ni soo demee ci kàggu yi tubaab yi bi ñu bëggee sëriñ bi ñëw ñu bàyyi ko mu ñëw Tuuba sañ ci borom daaru mooti boobee tiital na leen ndax gis naa fu ñuy bind di wax ni sëriñ bi buñ ko autorisé mu dem Touba jël ya day bari wala boog buñ koy bàyyi buñ koy defal autorisation bu demee ba mu gisee ak benn taalibe ndax Ibra Fati defal na ko fa ay kër yu yaatoo yaatu amoon nañ ci ak ak fiiraange ñaari at gannaaw ba ci la ñu defoon pétition boobu borom daaru Moti maam Cheikh Anta sëñ Balla Corop ak Serigne Massamba Mbacké bindoon gouverneur di sàkku ci moom mu bàyyi sëriñ bi bu doon ñetti weer sax mu ñëw ko euh, Touba 1921 ñaari at ginnaaw sanc bi waaye euh, tubaab yi dañoo gàntal juróom benni at gannaaw ba 1927 ci la sëriñ bi ñëbb si Touba sëñ Moussa Ka nag mu ni ku weddi lii laa jël Mouhamadou Khari maître la woon moo ma ko wax moo ko gore sëñ Mouhamadou Khari Diop moo nga xamante ni ba borom daaru muuti di dem gànnaar moom la àndaloon moo ko sant woon moo nettali sëñ Moussa Ka te sanc ba bokkoon na ca maître menuisier ak Baye Mawad doon ko xarañoon ci mbiru menuisier kon sanc Touba bi bi mu noppee te matériel ba seng yaag dénk yaag pont ya des loo ci bëgg a jël mu ne la bàyyi ko fi coffre-fort bi nga xamante ni bii moo defoon xaalis ba itam da ko fa bàyyi ndax sëñ Moussa nee na keroog la coffre-fort ba des fa Tuuba mu jox ko Cerno mu tëj ko booba muy sëñ Thierno moomu nga xamante ni sanc baa ko yóbbu woon Touba ñu bàyyi ko fa waaye dellusiwaatul daru Touba la far dëkk dégg nga sëñ mu ni boobee ba tey Cheikh Thierno Fall delloogul ngir darajay maam Thierno sooful bàyyi ga ko fa borom daru bàyyi woon ngir muy wattu sanc ba dellu siwaat foofa la toog ba far féete Tuuba ak njabootam nekk fa kenn ci ak njabootam di soxna Bintu Faal sëriñ Basiru Anta Ñaŋ mi toog toogaayu boroom Daarul Muxti moo ko dëkkoo woon koppar for ba ñaata la ci borom Daaru Muxti bàyyi woon sëñ Moussa Ka wax nañu ko mu ni téeméeri junni téeméeri junne ca desoon ak nit dañu wax six cent mille xaalis bi borom Daaru Muxti yóbbu woon ngir sañc Tuuba sañc na ba noppi desal junniy seng ak téeméer desal junniy dénk desal juróomi bërigooy pont bàyyi fa kopparfor boo xamante ni bii téeméeri junni ak ñaar fukk des na ko des na ca sëñ Moussa Ka nee na mu bàyyi ko fa nag di ko xaaroo jumaa ji ngir saa bu ñu tàmbali liggéeyu jumaa ji ñu def ko ca téeméeri junni ca de téeméeri junne ca desoon ak nit di ko xaree di ko xaroo jumaa ja far ni mott fa la bàyyi kon koppar for ba fa Tuubaa waaye sëñ Moussa nee na ba xiili xaala ja ba xiili xaala ja amee fa Tuubaa sëriñ bu soobee jëli kopparfor ba sëriñ bu soobee bëkk néegu borom daaru lu moxti la woon sëñ Musaa Ka moom moo wax ni ba xiile xaal ja amee kon am na lu ci amoon ba tax euh, kopparfor ba ñu jëli ko mu ni nag wataa ko sëf indi ko daaru lu maam Thierno Faf génn ci bandeeg parti kon mel na ni ba mu ko fa bàyyee am na ay luubalkat yu ci doon jéem ba moo tax sëriñ bu soobee moomu doon bëkk néegu borom daaru mawti dem jëli koppar for ba ñu sëf ko ci oto indi ko daaru mawti euh bimu sanke sañcee Touba ba noppi nag bi mu dellu siwaatee Daaru Muhti sëñ Musaa Ka nee na ca mooma at la Ceerno bojj dàggaya yóbbu ko Njurbel gaaye wa mat tarkaya tarkaya mooy giléem yi téeméeri mbaam lañ njëkk a sëf fa daaru juggali mbaam lañ daa wëtal fa daaru juggali mbaam mooy géttug mbaam maanaam bi ñu bojjee daggee ca cinkóoli xanaa ñuy fàttali rek ni Cheikh Abdul Xuddos nee na sanc ba def na ñaari at maanaam mille neuf cent vingt et un at moomu nga xamante ni ci la Sëriñ Mor Jaara wàcc ab liggéey ci la sanc ba yegg borom daaru muuti dellu siwaat cinkooli mbokk yi kon euh, mel na ni li ñu cërale woon ci waxtu mat na xanaa dañuy tàggatoo rek jox leen dig daje ci fukkeelu pàcc bi di dixième épisode bi bi yoon moom njuumte amu ci bii mooy juróom-ñeent bi bi ci topp mooy doon fukkeel bi ma di leen sant di leen gërëm xanaa di leen soññ rek ngir ngeen abonné ci seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV bu ngeen di seetaan vidéo bi rek man ngeen a cloche bi muy joonóoli bi ak fi ñu bind sabone mbind mu xonq bi nga teg sa baaraam rek daal di abonné te vidéo itam ngeen koy partage di ko seddale ngir di ko baaxee mbokk yi nga xamante ni xëy na abonné kon bi di leen sant di leen gërëm te di leen jox dox daje ci fukkeelu pàcc bi waa Italie yëg ngeen xew-xew bu neex bii Rayo dikk na ak xéewal yu amul fenn Rayo mooy quatrième opérateur de téléphonie fixe au Sénégal basé wu ca Matam ñu taxawal ko depuis 2015 service u Rayo yi mën nga ko am fépp foo dem ci àdduna foo nek, mën nga wut abonnement surtout yéen ni mbok yi Italie soo bëggee xéewalu ci bànneexu xayu da ngay joxe sa carte d'identité Sénégal wala sa passeport nga pouvez am ci application xayu ak numéro téléphone bu bees dàq li ci gën neex ak 10 euros mën nga wuti une heure de temps Sénégal 5 euros mën ngaa am 40 minutes de communication

mën Joko Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie T 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 yoomi dawal ka abonnement Hayo ngir love you.